auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim man soxna Fatou Thiam taalibe Cheikhul Khadim maa dellusiwaat di leen leeral lenn ci ay baatu Serigne Saliou yi nga xam ne daana ko dénkaane moom Serigne Saliou Mbàkke yi bokk na ci ak fonk ndigalam daana wax ne ndigal ak caabi ñoo tuuti waaye bu du ca dara ndax teewu ko di ko ubbi moom Serigne Saliou Mbàkke yi daana wax ne ci fonk ab yar wax ne it samay gone bëgg naa ci ñoom ab ci mën naa nekk ndax Serigne Touba moo wax ne big di xiyaal yi bi bikaay yow Serigne yow suñu borom defal ma ci samay gone ak yar ci dudul ñuy jooy moom Cheikh Saliou Mbacke it daana wax ne Serigne Touba ku koy tudd ci lu ko juru tudd ci maasam foo ko fekk moo cee gën a néew barke moo cee gën a gàtt fan moom Serigne Saliou Mbacke it daana wax ne maam Cheikh Ibrahima Fall ku nekk ab murit war na koo jéem ci Pastef ak fonk ndigalam moom Serigne wax ne tuub aayut tuub dellu ca moo aay moom Serigne Saliou Mbacke it daana wax ne buur dañu koy jàmm jëf dañu koy sellal alal dañu koy sàkku xéewal dañu koy sant jàmm it dañu koy sabablu bàkkaar dañu koy tuub nee na yii yépp nag lu ci nekk danga koy sellal moo koy tax ci ak fonk goneem ak bëggoon ko am ak fu ko teg daana wax ne de leen dimbali gone yi ndax gone kat ku koy dimbali doo ko réccu mukk moom Serigne Saliou Mbacke it daana wax ne jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom la Serigne Touba daa def ci mag ñi bu ma ko yelloo it barkeeloo ko moom Serigne Saliou Mbacke it daana wax ne bu leen sikki ne may jaarale sama ndongo yi mooy ba Serigne Touba daa jaarale mag ñi moom Serigne Saliou Mbacke it daana wax ne sama ndongo yi bu leen sikki ne lu seen taatu gaal yi maa ko gën a xam moom borom jurul it daana wax ne sama daara yi bëgg fee ñëw taxul nga ñëw fi bañ fee ñëwit teewul nga ñëw fi ndax ña fay ñëw Serigne Touba moo ko tànnal boppam moom borom xel koom jaaga it daana wax ne ki ma jaaxal mooy ki nga xamee ne si dafa yàkkamti waaye ku yàkkamti wu toog sama daara ji di nga defal moom Cheikh Saliou Mbacke it daana wax ne am na ñaari ndongo yu xeexoon ma di leen laaj ku nekk di nakk-nakkal ma wax leen na leen su fekkente ne du ma toogee fii ci Touba. duma xam la leen la ma du xam la ngeen di def fee ca xel koom kon lan laa leen di jëriñ asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu lii lan leen indiloon lenn ci ay dénkaane Serigne Saliou Mbacké ci bëgg gi mu bëggoon gone ak fonk ko ba beneen yoon incha allah